bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu wassalaamu ala rasulihi al amin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain wa man ihtada bi hadihim ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk jullit yi gannaaw bin leen nuyoo ñoo ngi ñëwaat ak yéen ci waxtaan wi nu baaxoo def ci dimanche bu jot ci waxtu wi xadis bi nuy am tey nii la tëdde an aishata radiallahu anha an innabii sallallahu alayhi wasallama qaal jële nañ ci aisha sunu yaay aisha radiallahu anha mu jële inna rifqa laa yakunu fi shay'in illa zaanahu ndànk du nekk mukk ci ab mbir lu dul daf koy taaral daf koy rafetal wala yunza'u min shay'in duñu dindi ndànk ci benn mbir duñu rocci ndànk ci benn mbir illa shaanahu lu dul ne daf koy ñaawal daf koy ñàkkaloo taar du ko rafetal mbokk jullit yi xadis bi am na fu muy joxoñ jëme ñi nga xam ne ñoom ñooy jaamu yàlla yi muy orientation bu am solo eh, li tax xadis bi nag wàcc sunu yaay Aïcha mi radiyallahu anha moom mi ñu nettali xadis bi nee na dafa amoon benn bés ñuy tukki mu ànd ak yonent bi alayhi wa ba mu yéegee ci gileemam moom sunu yaay Aïcha toogaayam jekkul gileem gi it dalul mu commencé di ko forcer di ko forcer di ko gëtën yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis situation yooyu mu nekk ak na koy defee damay forcer gëléem gi ndànku wu ko teeylu wu ko mel ne ku ko yàkkamti ci la ko daal di waxee wax ji ne ko ndànk day mbir mu mu nekk da koy yokk ab taar day tax mu rafet day tax mu neex xool bu dee ab jëf la day taxit mu neex a dégg bu dee ak wax la waaye mbir saa yu ñu ci roccee ndànk rek su boobaa mbir ma day ñaaw mbokk jullit yi xam ngeen jéye yu bari yi am tey ci kaw suuf li koy waral mooy bañ a ndànku yàkkamti a teey gaa yàkkamti yàlla daf ko mooñaaleel doomu aadama mu bokk ci yi nga xam ne deretam la ci aaya alquran sax yàlla wax na ne xuliqal insaanu min ajal doomu aadama dañu ko bind ci yàkkamti ci beneen aaya mu ne wa kaana ajulan doomu aadama ku yàkkamti la yàlla daf ñuy sànni ay melokaan ay jikko mu andil ñu lu ñu koy xeexe ba mu génn si ñun bi ci la bokk kon nag li war ku nekk si ñun mu xool boppam ak melokaan bi ndax ndànkaa ngi ci moom ndax kuy ndànku la ndax ku teey la ndax ku dal la wala safaan ba moom moo am su fekkente ne loola am na day na xam ne moo ngi xeex jikko ji pour mu jéem a set ci moom ndax lépp lu mu dugg rek mu nekk lu rafet su fekkee nekkul ci moom na xam ne jikko ji da koy yàqal waaye du ko defaral ndànk boobu nag ak teey boobu ak dal boobu nañu xam ne dafa war a feeñ ci sunuy wax buñ dee wax ñu teey dafa war a feeñit sunuy jëf ak sunuy jëflante bu ñuy jëf ñu teey bu ñuy jëflanteeg nit ñi ñu teey bañ di leen sëfal bañ di leen ërtël bañit di leen yàkkamti bañit di leen sañaxal yooyu ay yëf la yoo xam ne dafa safaanoog xadis bi waaye daf ñuy jàngalaat beneen mbir mooy ne nanu yëg ne bokk na ci ndànku ak teey ak dal su fekkente ne nit ki dégg na xibaar xibaar ba mu vérifié ko teey ci dal ci ba ba muy am lu ko wóor waaye bokkul ci teey nga dégg xibaar rek dal di ko commencé siiwal li olof di wax nga dégg teel la rek di ne dammana na yàlla tere nañu loolu ci alquran wax nañu ne ya ayyuha alladina amanu in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahala fa tusbihu ala ma faaltum nadimin yéen way gëm yi su fekkee xibaar dikkal na leen loo leen miinul woon dégg ci seen nopp loo leen xamul woon ci jëmm jañu jañu joxoñ ne moo jëf-jëf ja wala moo ko wax na teey na ngeen dal na ngeen ndànku na ngeen leerlu ba ngeen di am lu leer jël leen seen temps bu fekkee defu leen ko dey di ngeen dal ci kaw ay nit te yàkkamtee ko waral ak ñàkk teey ak ñàkk dal bu leen dalee ci seen kaw be noppi wax leen di ngeen leen di wax wala ngeen def leen di ngeen leen di def ngeen yëg ne lañ leen wax information biñ leen jox baaxul ngeen rëccu nag kon nag nanuy dal rawatina nag jamono ji nga xam ne réseaux sociaux yi wax ju nekk nga ciy dégg vidéo bu nekk nga ciy jot loolu su fekkente ne dal na la teeyal nga teeylu bañ di gaaw a partager bañit di gaaw a siiwal la nga dégg bu dee audio la bañit di gaaw a partager su fekkente ne vidéo la nga ànd akub nit seetlu xool balaa ngay joxe loo xamante ne lii yàkkamti moom moo ko yóbbee kadalika it su fekkente ne nit ki dafay jël benn décision bu muy jël mu nekk kilifa fa mu nekk na teey ànd akub dal vérifier xool xoolaat <clears throat> moo xam ndax moom kilifa la buy def ay nit wala mu nekk kilifa boo xamante ni bi dafay atte wala mu nekk kilifa boo xam ne dafay génnee masala wala mu nekk kilifa bu mu mënti doon lu muy wax ak lu muy def mesure bu muy jël décret bu muy jël na ci ànd ak seetlu ànd ceeg tey ànd ceeg dal islam lii la bëgg jikko ji la bëgg mu nekk si ñun lii bu amee rek yu bari duñ dal waaye yibu amul dañuy dëkk ci njuumte dëkk ci jàdd yoon dëkk it ci erreur wala fi nag dañ doon wax ne ku ne tekk tekk wan law yoon kon nit ki boo dalee teey fi ngay teg sa tànk foofu la waaye su fekkente ne danga nga yàkkamti e, teeyuloo su boobaa li ngay wax ay wax yu jàdd yoon lay doon te nga mujje ko rëccu boobu sa tur dem na ba noppi li ngay defit jëf jooju yàkkamti moom moo la koy yóbbee soo noppee daal di ko rëccu yu bari yi am ci biir famille yi moo xam ndax diggante jëkkër rek jabar la wala mu nekk diggante jur ak doom wala yi am ci société yi diggante kilifa ga ak ñi nga xamante ne ñoom lay liggéeyan liggéeyandool wala muy am ci daara yi l'école yeeg ñoom seen mu nekk yoo xamante ni jëflante bu jaarut yoon la ñaari li koy waral mooy teel a jël mesure teel a jël décision te yàkkamte moom moo koy waral kon nag mbokk jullit yi bind bu am solo ngi nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñuy digal pour ñu teey pour ñu dal pour ñu ndànku mbir yi ba sax ci mala yi ba sax sa oto forcé bu amee rek mën ngaa def jéye boo xamante ne bii doo xam koy àkkee kon nag nañuy teey ñu ànd ak dal ci wax yeeg jëf yeeg jëflante yi loolu buñ ko defee nanu xam ne li ñuy def bu dee jëf la li ñuy wax day nekk lu am taar lu rafet waaye su ca nekkulee da ngay gis ne lu ñaaw lay doon te sunu borom yàlla lu am taar lay jël waaye lu ñaaw moom da koy delloo seeni borom kon yàlla ñu yàlla may ñu dégg bindam yi jëfe ko te mu nangul nu ko wa ala nabiyina muhammad wa alihi wa ashaabihi ajmain